Focus Culture. Mm. alors fédération femme euh, Femmes Sénégambie ñoom nag ci activités yi ñuy def ñu amal grande nuit culturelle fële ca Banjul la événement boobu la ngir fexe ba valoriser culture bi moo xam Sénégal ak Gambie nga xam ne lu bëri sax nag dañ koo nuyu euh, dañ koo ndiroo euh, te ci loolu public ba fa nekkoon moom profité nañu ci ambiance bi bu baax rawatina ak concept bi di Sorano et sa diaspora ensemble lyrique traditionnel bi def fa performance yu am solo Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy nañu ko. reportage. sukkandiku ci culture wala cosaan ak aada ngir gëna jëmal diggante yi soxna yi bootu ci fédération de femmes de la Sénégambie saa su nekk ci loole lañuy dox ñu ne nag bu weesoo li nga xamante ne ñu ngi koy bay seen waar ci lépp luy jëmale kanam ñaari réew yi ci wàllu koom yenn saay ñu taxaw nag sukkandiku ci culture ngir lépp loo xamante ne mooy diggante bi gëna rafet. xew-xew bi ñu ngi célébrer euh, diggante Sénégal ak Gambia suñ culture promote suñ euh, cosaan promote suñ culture ci diggante ñaari réew suñ fédération bi loolu la ci loolu la jublu promote culture promote trade promote euh, diggante diggante Sénégal ak Gambia ñu dekkaliwaat suñ cosaan dekkaliwaat suñ culture boole xali ak xalaat yi ci njaayante njëndante initiative bu rafet la parce que li njëkkee mooy association bi mooy association bu njëkk bu nekk Gambie te ay jigéenu sénégalaise ak gambienne bokk ko d'habitude da ngay gis association boo xam ne sénégalaise la nekk wala gambienne mais bii moom dafa boole euh, jigéenu ñaari dëkk bi te loolu rek ñun dafa dafa nekk suñu fierté loolu wone ñoom dalal bi nga xam ne moom lañ ñu dalal ci seen réew ba mu mel ni ñun fii mooy suñu dëkk. cosaan ak aada bokk ci li nga xamante ne dina gën a rafetal diggante moo waral nag ñu amal soirée culturelle bi bàyyi ko nag Sénégal fekk fi ñi nga xamante ne ñoo fekk baax fii ci Gàmbi ñu booloo ngir fas ne doon benn màggal tamit li nga xamante ne mooy. li ñu bokk. diggante Sénégal ak Gambie na nekk diggante bu rafet diggante bu baax diggante bu bu bu gën a dem ci kanam waaw relation bi baax na rafet na waaye dafa war a gën a dem ci kanam te culture da koy propulser à des niveaux yoo xam ne mosuñ ko xalaat. di ñaan vraiment bii li tax mu yebal fi njaboot gi yàlla nañ ci am ndam boo xam ne kawe na suñu. baax a baax parce que jigéen lu bari mun na ko lijjanti ci diggante bi réeroo mun naa am béréb sax mais ñu envoyé ji délégation bu jigéen am na yu ñu mun a def yu ñu mun a wax dinañ rataxal diggante ci ci loolu la ñuy dox ni ñuy rataxalee suñ diggante. ci ci seen wàlli liggéey ñun itam ci seen suñ fànn ñu ngi make sure ni tamit ñu ngi promote ñun itam suñ wàll leen lii lañ jublu ci dundal culture bi. Sénégal Gambie moom benn réew la dafa nekk ay affaire tubaab bi moo ko fi def daal ñuy xaajale waaye ci suñu gis-gis suñu doxalin mhm. xaajaloo amu ci benn yoon euh, taxawaay yi benn la pas-pas yi benn la sama mbokk jigéen ñi nag duma def lu dul di leen sant di leen gërëm ndax initiative bi initiative bu rëy la du ñu ñaan dara rek yàlla lu dul mu ñoŋ te jëm ca kanam. li ni mel moo waral nag ñu boole ci waa compagnie nationale Daniel Sorano ñoom ñi nga xamante ne ñoo développé concept bi ñuy wax Sorano sa diaspora ñu ne rek mën nañ sukkandiku ci loole tamit ngir béy seen waar ci li nga xamante ne. ñaari réew yi moom la ñu sumb. waaw c'est ça donc Sorano sa diaspora mu ngi fii Gambie tey parce que ni nga ko xamee concept bu ñu développé la depuis un certain moment ñu def ay dëkk yu bëri donc tey ñu ñëwoon Gambie nag pour Euh, Sorano sa diaspora fii ngeen gis mobilisation bu am am solo bi nga xam ne gis ngeen ko fi ñu def benn spectacle boo xam ne ñëpp gis na seen bopp parce que suñ ñaar dëkk yi benn la Sénégal ak bi ñoo bokk culture ñoo bokk cosaan ñoo bokk histoire moo tax euh, tey euh, ñu lëkkaloog fédération des femmes de la Sénégambie pour présenter ce grand spectacle là. parce que délégation cinquante personnes la ñu déplacé ak logistique beeg li muy àndal yëpp. pour mun a réussir spectacle son et lumière bi nga xam ne waa Sorano ñoo ko présenté. muy xalaat bu ñuy rafetlu ku ci nekk indi li nga xamante ne moom nga gën a fonk ñu boole ko jàpp ne Sénégambie benn réew la waaye tamit gën a dëgëral seen taxawaay. am na solo parce que euh, soxna yi daaw dama fi ñëwoon euh, ci benn conférence bu ñu organisé woon ma gisoon ne wàllu culture waroon na ci am euh, wàll ñu waxtaan ci may gërëm Ndeye Awa Kane bi nga xam ne moo ko jiite ak femmes ñu àndal yëpp. Euh, ci seen farlu que je pense que tey taxawaay bi ñu taxaw moo gën a yombal soirée bi nga xam ne euh, gis ngeen ko fi tey mu nekk soirée bu am am solo jigéen yëpp mobiliser wu gis ngeen feesal saal bi ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax ci cadre boobu nga xam ne Sorano sa diaspora la ñu am mbégte indi ko fi Gambie. ñu ne nag soxna yi ñu yeyoo jaajëfal lañ ndax at bu nekk dinañ amal xew-xew yu mel nii bu weesoo nag mbiru koom bi nga xamante ne dañ ciy dugal seen loxo bu baax di jàppalante li nga xamante ne mooy culture ñoom jàpp nañ ne lu ñu mën a jëfandikoo lañ ngir lépp loo xamante ne kilifa yi ñu ngi ciy bay seen waar ngir jàmm ak salaam dox ci ñaari réew yi ñoom tamit ñu indi si taxawaay bu mu ci ay merci beaucoup Ibou alors euh, concept bi gis nañ ñi defoon nañ ko tam ba ngeen demee ci fees nag bi n'est-ce pas ñuy déplacé wu ak euh, bale yeneen ethnie yi <laughs> en quoi différent fii ci Gambie yaa ngi préciser ni que c'est surtout pour euh, valoriser culture ñaari réew yi nga xam ne nduroon nañu lu bari sax voilà bi ñu bi ñu def fii Sénégal mhm. Sorano chez vous la mhm. mais bu génnee biti réew Sorano et sa diaspora donc dañu bëgg a ñëwaat ci mission bi nga xamante ne euh, Sorano mës na ko am surtout jamonoy Senghor ak léegi mm-hmm. donc nga xamante ne ils ont fait pratiquement dëkk yëpp ci àdduna bi donc yóbbu euh, culture Sénégal feneen bokkoon na ci li nga xamante ne doon na tax ñu xam dara ci Sénégal donc mm-hmm. bu ñu demee tey ba direction bu bees bi di taxaw noonu aussi mënuñ di ko rafetlu leneen liñ ciy toftal mooy taxawaay bi nga xamante ne fédération soxna yi am na ko. les femmes de la mhm. Sénégambie bi mhm. tamit ñoom tamit ay jàmbaar lañ parce que boo xoolee bokk na ci kuréel yi gën a liggéey tey ngir jàmm am ci ñaari réew yi euh, ah, ñoom xam nañ ko te loolu moo am que Sénégal ak Gambie peut-être colonisateur moo ñëw xaaj ko rek ci ay mhm. ay euh, frontières imaginaires mais boo xoolee c'est c'est la même c'est le même amul benn sénégalais wala benn gambien boo xamante ne amul mbokk fii wala nga am mbokk fële donc mhm. loolu souvent dañ koy jëmal jaaral ko ci li nga xamante ne mooy koom-koom waaye depuis quelque années dañ ci boole léegi culture moo waraloon ñu lëkkaloo ak waa soraano mhm. ngir amal li ni mel boo xoolee également ci euh, mission bi nga xamante ne ñaari euh, réew yi ñu ngi koy doxal mhm. ministère de la culture bu Gambie ak bu Sénégal defe naa liñ ci def bëriwul institution wala kuréel yi nga xamante ne parce que à chaque fois ñu ngi organiser euh, manifestation yoo xamante ne ñoom ñaar ñoo koy bokk mm. que ce soit festival wala mm. ay rencontre yoo xamante ne dimension première bi mooy jëmal certes la créativité mais aussi fexe ba. Mhm. diggante bi gën rata. Mhm. defe naa lu lu am solo la absolument te lu mat a dooleel la soxna mhm. naata. merci beaucoup jërëjëf merci euh, Ibou Diouf Thierno Laurent Mendy ci Focus Culture bi 7h41 dañuy ñëw dem RFM tey jëlee ñuy dalal Najirou Sall moom moo jiite CNCR CNC.